pour sauver sama équipe rek moo tax li yëpp am parce que ñu dégg fay Grenade bi dem bay door yi dem bay dóor booy bi xam naa xëyri aso ko booy bi freiné ko dafa gëj suñ blindé yi dafa dis ni mu ko freiné ñu ñëpp ñu jaxasoo si biir moment boobu la Grenade bi wadd léegi nag bëgguma woon bi tàkk si biir oto bi parce que su tàkkoon déjà oto bi essence la boole vitre yi blindé la ñu ñëpp ay xam wala suñ tempaan yi yëpp tuuru wala suñ nopp yëpp tax si laa jël nag faxas ko li ma koy faxase pour mu dem vers l'extérieur si la si la détonation li ma koy faxase pour mu dem vers l'extérieur si la ya, si la détonation bi am nag si la loxo bi demee noonu ak sama genou droit bi ci kaw dafa lakk quoi si kaw kiis bi noonu mais boobu c'est pas méchant léegi ma ñëw ñu dugaloon bloc finalement dañ ko amputé sax quoi ñu ngi ko dagg si entre poignet bi ak coude bi quoi mais sant yàlla sant yàlla grand merci si ñaan yi ngeen ma gaayaf du ma mën a dugg si groupe bi wax mais ziaral ma ñëpp maa lay ñaanal ñu dolli ma ñaan ko jaajëf